jërëjëf mbokki internet yi nga xamante ne yéen ñu safoo si biir Pro Média amaat mbégte ak contentement comme ni ñu koy defee saa su na rek defe naa ni avant làmb ji ak après ak li nga xamante ni moo xew ci kër mbër yeeg lépp gis ngeen ko noonu indil nañ leen rek ko si biir Pro Média waaye buur <laughs> buur yi ngay naan dafa mel ni. <laughs> man day man day Doudou xam nga ne man zéro pression. jërëjëf Doudou ñoo ngi lay baax. di féliciter tout toute l'équipe de Bipromédia ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni que def nañ ko ci événement bi pendant avant et après vraiment dama wax ni bëriwuñu waaye nag nous sommes très efficaces loolu moom <laughs> na ko gars yi bàyyi xel te nañu xaar li ci kanam incha allah raw di bët <coughs> loolu di sant yàlla julli ci àlaj di ñaanal suñu wajuru jigéen fa mu tëdd yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk moom ak kum fa fekk ak ko fekk di ñaanal suñu bàyyi bu baax bu tedd bi yàlla bàyyi ko fi ak suñu tante ji waaye di feddali suñu yaakaar ci suñu buntu Cheikhul Khadim di Cheikhul Xayr yi Maulana Cheikh Ibrahim ibni Sëriñ Mbàkke Madina mu ko ñaanal sama borom defal ko ridan barakatan wa rahmatan fi barakal Cheikhul Khadim du du nuyu internet yëpp nag ci mbégte safo ak bëgg gi ñu am ci Bour te yàlla xam na ni bi ma demee stade sax j'étais surpris ba finalement sama déplacement sax dama ko mujj limité wut fu ma toog jàpp sama njàmbur ci nit ñi rek cofeel gu ñu am ci ñun te làmb rek moo ko waral nag mhm. te incha allah nee leen da ngeen ñu gën a ñaax rek ñu wax ci làmb en toute impartialité mhm. euh, di ci wax rek suñu xalaat mën na jàkk mën na bañ a jàkk mhm. mën na nekk noonu comme mën na bañ a nekk noonu ndax ay nit rek yuy xalaat suñu xalaat du moom rek mooy compter ndax dañuy jàpp ne buñ ko indee ci làmb boole ko humour ak xorom nit ñi dañ ko bëgg ñu xam ne làmb foola rek ak ree euh, du dara ay gor la yu seq dara di ci wut teraanga ngir mën a dimbal seen njaboot. jërëjëf mi ngi noonu buur euh, kontaan nañ ci nuyoo bi yow it di la ndokkeel defe naa ni métier bi doyen nga si bi nga koy doxal ça fait des années mi ngi noonu tey Modou Lo bëri na ak ki nga xamante ni moo di Boy Niang de daan ko. waaye préparation yi ak buur ba ñaari mbër yi demee ba si mekku avant loolu damay ñëw si cumbukaay yi ak mbër yi ak départu mbër yi nga xamante ni am nañ ko mm. buur man maa ne woon pikin mm. boo ñaa mi ngi yegg si kër papam 17 heures et demi mm. ak fan la nekkoon ak yooyu état yooyu noonu est-ce que amul lu muy def si mbër mais avant boobu dama lay laaj ci diggante ñoom ñaar si seen départ bi nga gisee si xar kanamu ñaari mbër yi. waaw xam nga boo Niang 2 bu ñu rappelé combat moog Balla Gaye ngémmawul euh, mooy ba ma euh, ne xam na ni jamono yëpp dafa sàkkitu woon li tax mu sàkkitu woon nag moom moo ko xam euh, kenn mënu ko waaye dama ni du tension bu am Pikine que combat ak Balla Gaye 2 mm-hmm. aussi Lac Rose la jóge tey ñëw ay vers midi. ñëw kër yaayam mais toujours serein calme confiant moom la mës a am depuis le début du combat boo xoolee seen face à su mujj bi bu dee vidéo yaa ngi fi ba sut sur bi promédia dama ni est-ce que Boy Niang de deful erreur ñu ne ma ci leen ma leen dafa mel ni day xëqante ba boo Niang de dafa mel ni dafa dugalaat Modou Lo davantage ci combat bi ma joxe ci benn exemple. ne Ama Baldé mu ngi dugalaat mu loo ci combat bi keroog ba mu ko ne su ma la teeloon gis du ma def caw mille francs nga ko barke Serigne Saliou Mbacké dama lay daan man def ni erreur boo ñaar aussi bi ñu xaqantee xëj na luy neexal làmb la comme làmb ji passé na amul problème dañu analyser rek parce que damay bañ ñu ne dafa daanu moo tax ñu ne nangam déedéet boo ñaar de un très grand champion. waaye Doudou benn wax bi laa waxoon Modou Lo c'est Modou Lo Modou mm-hmm. dem naa ba bi ñuy mujjee wax dama utiliser le mot extraterrestre mais Modou Lo n'est pas un lutteur mm-hmm. Modou Lo est un extraterrestre Boy Niang naa ko boo yorul ji koy paakas ji koy paaka doo daan Modou mooy kenn warula jiitu ci sa mbar mooy da ngay jël ses responsabilités xeex ak Modou Lo dès les premières minutes alaaji Faram sàppali ne Boy Niang 2 bu naan bu daanu Modou Lo ci cinq minutes di mujj yu njëkk du ko daan noonu lañ ko waxtaanee woon yàlla nag mooy may ndam. Boy Niang 2 n'a pas démérité mooy li gën a jafe ci làmb indi mooy courage ak ngor ak jom ak wu fit ak doole. xëj na j'ai pas amee certains attitudes du ma ci sax yàgg parce que mën na créer polémique mais un champion bu mel ni Boy Niang parcours bi mu def c'est le parcours d'un vrai champion tey Modou Lo mii tey mu daan ki daan Modou Lo ñaari yoon Boy Niang ko daan tey bi ma gisee mu dugg si ci yaaju kot ko mu jooy j'étais yi dama ne oh, ndaanaan am na tey lu ko naqari yaay ji ci dal gi ak mbaax gi ak ngor gi teeru doom defal ko mère Anna vraiment chapeau mère Anna chapeau chapeau chapeau parce que waajur loolu mooy taxawaayam ci watu doom xale bi dem na wuti yàlla xañ ko génnam bu mujj daa wuti woon yàlla may ko donc dañuy wax di courage à Boy Niang techniquement bi Modou ñëwee tey Modou Lo dafa dugg si ma yuuxu ma ne na ma lan la ma ne ko Modou tey làmbe na parce que li gars yi seetluwul mooy tey Modou Lo indi na galaaj. waaye. sàkk wala. man bi muy dugg ci j'étais là xëj na takkul. mais sangu na suul na hmm. indi na gàllaaj dëgg sax la indi te indiwul ay gàllaaju xale waaye it ak lu mën a mooy la mu waxoon la mu gëm mooy entraîné ba wow mel ni nga war a mel soog a laaj bés Modou Lo tey bi mu simee ko duudu tu vois un Modou Lo extraordinaire booy ñang dugg si dugg si bu yéeme moom itam bi mu gisee dama ne allahu akbar sérénité calme confiant état de forme bu bu bu bu doy waar te ñaari mbër yi amul ku ci xëm semeeku tey nga xeeb ko indi nañu état d'esprit bu baax staff bu baax booy ñang ba mu dugg see dafa kabar ñeenti xibla yi fu ne ma kabar fa ñaari yoon allahu akbar allahu akbar ba ñeenti xibla yi mat dugg ci làmb jënd jaay ju yuuxu allahu akbar allahu akbar ca kaw xale bi ñaaj dem ci waa ni xool leen ne leen jooy jooy ne jooy jeex na waaye bu moo dugg see dafa xool ay supporters am ba ñu xool ko mu yor ba jënd kooba gi neen bés bi jeex na dama koy rendi Modou Lo kii arrêtera Modou Lo dul bu kii arrêté la Modou balaa boobu dama lay dokk dama bëgg nga décortiquer ma làmb ji avant ñoo dem ci li nga xamante ne waaw erreur ji Boy Niang def ak ak ni ni ni Modou Lo gañee làmb ji ndax danoo xeex si kaw hmm, Boy Niang <laughs> bàyyi xeex ba daw dugg ci tànk bi loolu boobu dafa jël benn coup coup bi mu jël moo ko jaxase parce que Modou ci léewtoo bu njëkk bi waxoon naa la ko fii duud ne la Modou amul lu mu war a mën a përti përti war lu mu mën a guerrier guerrierlu ba mën a diriger la combat amul sens. ñëw na Modou Lo nga le roi des arènes quand même moo soxla. mais bi ma ko xaaree xaar ko pendant six mille sept xam na ni bu dëggalul boppam combat bi mën niil ci la Modou na commencé def benn benn mais bi muy def benn benn bi. Boy Niang riposté na ak mais gauche bi mais Boy Niang li gën a sonal ci combat bi mooy pied gauche bi bi Modou Lo teg te Modou Lo kuy bëre pied droite da nga koy arrangé parce boo xoolee Boy Niang xeex bi ni mu ko bëggee je l'avais souligné nee na bi muy dajee ak Tapha Tine il avait le même problème Doudou bi muy dajee ak Lac de Guiers il a le même problème mooy que bu taxawee pied droite boobu nga fatt flanc boobu da nga koy gêner. te loolu mooy dëgg mais bu ñuy wax malheureusement gars yi des fois dañuy wax ay waxi supporter mm. mais boo ñaar ñi taxawee taxawaay boobu yëpp dañ koy indil ay problème ñaare li muy am ci yow comme solution mm-hmm. mooy cokkaas la nga riposter di xeex ak moom wala changer pied mu def la ko moo loolu laa très tôt compris mm. moo tax tekk la def ak sérénité xam ne xale bi daf ko bëgg aspirer bi ñu dawee xeex ba kor bañ ko doon éviter loo kor ba moo ko sonal ndax ca kor ba ca la jëlee kuuya parce dama ne woon Modou Lo ñaare erreur bi mu bi ko daloon ci Ama Baldé du ko dalaat mooy gisee ne Ama Baldé doon na ko certes vingt-deux coups mais yi ci dal bariwul Modou jàng na loolu xam ko korba bi mu ko dóoree ñaari coup xale bi tërëf boo ñaa amul woon beneen solution ndax moment boobu su jéemul daw jëli tànk Modou Modou day enchaîner donc moo tax mu dagg xeex bi daw jële tànk ba Modou ras wàcc jàpp ca ngemb la moo xam ni fi ko Modou yegg sori na bi muy jéem a siggi <laughs> la ko Modou def su siggi woon Modou xaarul mu siggi parce que Modou fi muy siggee dafa bëggoon wër nomb wala la non mënuloo mënul woon siggi parce que Modou ngi ci kawam moom Modou Lo daf ko nooju téye ci njambli mënul siggi c'est impossible donc Modou n'avait pas euh, euh, Boy Niang n'avait ko Modou Lo yegg dafa sori ci siggi nekk c'est impossible parce que boobu Modou yegg na ko ci ndox ba ci baat mënatu ci génn. mais ni ko Modou def noonu ku amul doole du ko def nit. waa mais Doudou gisoo Modou Lo xanaa bi mu simee ko Doudou ñoom ñaar ñëpp kenn jëppiwu leen sincèrement Modou Lo ndaanaan la Doudou. Hmm, bërki démb nee naa li ma yëg neexuma. alliance neexa faral waaye ne woon naa la ñuy géwél nañu dédommagé balaa ñoo dem ci ko combat bi. Doudou gisuma woon sincèrement boo ñaa tëral Modou Lo su ko gisoon su maanaam su ko defoon ça serait un très grand surprise pour man. ok wax dëgg la yonent bi euh, dëgg la Boy Niang était un très grand champion mais Modou dafa naqaree calculer Doudou. waaw moom li tax gars yi di naan mënuñu ko xam. xamuñu ko Doudou nee naa la visionnel vingt cinq combats yi mu def. bu ci nekk na mu ko bëree ak na mu bëree ba ak morom ma bokkul. Modou il a son propre style. Mm. Modou lim man moom rek ko man. Mm. mooy dooni mbër moo dooni mbër mi lii mooy fooram. Modou bu ñëwee ci bis bi li mu indaale doo ko xam day ñëw li bés bi laaj mu def ko. tey wanee ci la boppam la mu ne woon bés bu daanee booy ñaan Modou nekkatul meeru Pikine romb na ko. chef de canton lay doon kon tey bés ki tey Modou Lo doon na chef de canton bu pikin loolu la yàlla dogal fii la juróomi at fukki at Pikine dootul jur mbër mu ko daan mu neex ak mu naqari daan na ña man jeex na nekkatul roi Modou il est l'empereur de la lutte sénégalaise donc nag Boy Niang nu suivre parcours am ñu ko dese bari na gis nañu tey ku mel ni tafaatin ñëw na dëkkoo mook Boy Niang am na fuñ jaar léegi nag Gris Bordeaux wàcc na te bëregul ak booy Niang léegi Modou Lo kan moo ko dese duudu c'est ça kii parce que bu fekkee la mu waxoon dafa ni woon doyal naa ci combat revanche waaye amateur bi ñu ci bari buñ sañoon mu amaat benn ultime troisième confrontation ak Balla Gaye 2 alias Cukkuli Balla Gaye 2 guddi daje ak Modou mooy li ko gënal ndax jàpp na ni moom rek mooy mbër mi nga xamante ni que mën na bëre ak moom loolu la jàpp moom alias li te gëm naa nit gars yi ñu ngi wut ay pexe <laughs> pour que Balla Gaye 2 <laughs> daje ak Modou mais Modou Lo bu dee dafay suivre sa logique ku ci mel ni Tapha Tine Ella mu suñu bëree ñoom ñaar Lac de Guiers ella là mës nañu bëre ñoom ñaar Gris Bordeaux est là nañu bëre ñoom ñaar. léegi nag mu des ci xale yi kañ la ci jël mais ci xale yi ki ci ëpp chance en ce moment là Sa la ah oui. mais fan yi nag. waaw mais xam nga Sa moo gën a jege te Sa Thiès gëm naa ne moo tey boo ko tegaloon Reug Reug tegal ko Sa Thiès il va choisir Sa li tax muy choisir Sa Balla Gaye 2 ko daan moo tax te xam na ni pour mu wàññi métit boobu foog mu daan Sa Thiès mais que il le fera il le fera parce que Sa ci xale yi saf sàpp yi la bokk waaye est-ce que Modou génération bii am na ci mbër mu ko ci mën a daan c'est ça le problème euh, pour daan Modou yan qualité nga koy war a mën a duggee da nga koy dóor ba énervé ko wala yan yan cadre nga mën a jaar. Modou ñaare day def erreur nga daan ko comme ni mu defoon ci Bombardier il a voulu insister ci benn action boo xam ne kenn du ko def am punkal mooy dugg nga benn yoon mu mbaar la nga duggaat mu mbaar la daan la bala gay 2 est la seule personne à pouvoir battre Modou Lo alias Cukkuli wan nañ ci bëtu senegal yëpp ni moom rek moo ko mën a daan ndax seen i bëri dafa jiyaloo Balla Gaye 2. est le lutteur le plus redoutable de sa génération tout Balla Gaye bu nekkee ci li mu war a mm. nekk mel ni mu war a mel billaahi wallaahi tallaahi Balla Gaye de mm. rek moo mën a daan moo mën a daan Modou Lo mm-hmm. nag est-ce que Modou dafay fayu ci Balla Gaye de loolu la bëgg mm. wala wa ilaa day may saacee chance am wóoruguñu làmba ngi ci kanam en tout cas Doudou euh, waa Pikine il est que ñu toog autour d'une table. Mhm. ñu waxtaan. parce que animosité bi ma gis. Mhm. xajul Pikine amu foo wàll. Mhm. beneen bi ci des ba suñu mbokk journaliste yi. c'est pas la peine de jël ñenn ñi biir Pikine pour ñuy wax yenn façon wax yi. ba ci famille booy Niang ba ci papaam gisuma tey. benn média bu ko war a mën a jël ndax buy wax dafay wax sur le coup de l'émotion Boy Niang kenn sotu ko kenn xeexu ko Eumeu Sène mi magam ñëw na soutenir ko ñoom guerre bu zàpp waa Pikine yëpp teew wuti na yàlla mi maye ndam xañ na ko dañ ci rafet ndax Boy Niang jël na défaite bi avec philosophie buñ ko wutal benn noonu kenn taxul mu daanu kenn daanu ko yàlla mi ko mooy ndam ci dib ak digganteem ak Balla Gaye 2 moo ko xañ tey ci digganteem ak Modou Xarañ Lo mm-hmm. li tax nag may wax lii damay ragal mbir yi am nu mu demee mm-hmm. te warul demee noonu mm-hmm. wax ji xaju fii dara xaju fii booy ñang xale la defagul dara ci carrière il avait l'opportunité il mm-hmm. yàlla xañ na ko nañu ko consoler jàppale ko mm-hmm. ginnaaw suba mu delluwaat ci entraînement am da xam ne benn avancé ngi dugg léegi incha rabbi mm-hmm. waaye daal j'aimerais pas lu ko jege moom Boy Niang génn di def benn sortie di pointer du doigt à personne loolu ça ne serait pas juste bi na mérite pas ça Boy Niang est un samouraï Boy Niang champion Boy Niang est un capacholi Modou nag mu ngi doxal yoonam nekk ci li mu waroon nekk gëm ay entraînement am la ma waxoon duudu mooy Modou kuy bëreeg moom di nga bëreeg moom ci charia boo bëreewul ak moom ci charia dina bëre yow ci charia daan la. mais jàppoon ni ki koy daan day ñëw ak yar ak teggin ngir mën koo daan je suis xel beeg psychologiquement mm. parce que soo seetloo ñi moo du bëreel ñëpp ku si ñëw di ko jaay <laughs> fëgg dënn ak yooyu noonu da ngay am jafe-jafe ngir daan ko. Doudou Modou Lo moo naqaree daan Modou Lo des fois tu te la question Balla Gaye de fan la jaar ba daan ko fan lay jaar ba di ko daan tout le monde se pose la même question. mooy def ko mën tout simplement comme ni mu mënee boy yi ah oui kële daal ñaari yoon moo la mën mais booy génération bi yëpp Modou Lo leen mën te li ci kanam rawuli bët ku ko bëgg a daan li ngay làmboo dana bari ko bëgg a daan Modou Lo du di nga bari jam lool bari ngor lool bari doole lool mën a bëri lool ñi may xeex lool ndax Modou li muy bëreeg li muy xeex la kenn comprendre waaw Modou Lo man dafa mel ni benn genre sorcier ci samay bët Doudou Modou dafa créer beneen style ci lam dafa indi beneen style ci lam dafa indi beneen façon de lutter ci lam est-ce que li ci kanam dinañ ko daan wóoruñu waaw en tout cas Sa Thiès est là Balla Gaye 2 est là il est le roi des arènes Tapha Tine est là de Guiers 2 Bordeaux est ba ci Umar Kane Reug Reug est là en tout cas Modou est le roi des arènes téye ko li mu defagum kenn defagu ko nekk roi am ñaari sorti daan ko boole kooku sa sorti ba nga jëlee couronne muy ñetti sorti yombul donc nag man beneen Modou bu néew lug laa gis Modou bu bees tàq loolu boo gisee Modou Lo tey ni mu bàndee ñaari loxo yi ngay xool yaram wi ni mel duudu Modou bu boole kook kenn xamul li lan la kenn xamul li la kenn xamu ko mais en tout cas assisté nañu journée bu neex a neex neex boo xam ne vraiment euh, félicitation la ñuy wax à Makan Mbengue euh, di ko ñaaral yàlla yeneen journée yi mu jëm yàlla defal ko ci vraiment résultat vraiment Euh, il a tout fait ba journée bi taxaw. vraiment di remercier parrain bi suma grand le grand maire Issakha Diop. ndeysaan gis naa ko fa tey l'honorable député Mame Diarra Fam ñoom père Mansour ma jàgga yamoon yëpp ci combat bi avant géwél dañ doon neexal rek. lambu dafay géwél dafay du géer. dañu di neexal ak a fo ak ree ak a loolu kese la. Boy Niang 2 Modou war na ni ko maa mën daan na ko. loolu mooy li am amul prétexte y'a rien làmb ji c'était pas sax mystique du côté de Modou Lo amoon a montré sa suprématie tout simplement mën na ko daan na ko félicitations à Modou Lo mm-hmm. di courage a Boy Niang ñu xool Boy Niang adversaire bi yaa ngi ci kanam mën na bërewaat làmb la mm-hmm. amul leen duudu mi ngi noonu buur euh, gis ngeen ko li nga xamante ne moom la ñu waxtaanee fee ci arène nationale ci diggante Modou Lo alliance neexa faral dimanche ak ki nga xamante ne moo di Boy Niang di féliciter Modou Lo encore une fois di roi de arènes bi waaye di di encourager ki nga xamante ne moo di Boy ñaar rek encore une fois buur lay tàggoo. waa di remercier ñëpp du euh, ñu xaar ñu suba mag alaaji sàppali faram tout incha allah ñu def euh, sorti bu ama am solo. buur daal la ngi sangu ni fi mu ne Doudou pour dem Youssou Ndour ba xaw ma est-ce que Jackson dina ma bàyyam déet Jackson may nga ma permission pour dem ci Youssou Ndour ba ndeysaan nee na ma demal yaay Adja maanaa kon Doudou di leen remercier waat vraiment liggéey bi rafet na trop trop trop di ñaan yàlla yàlla yàlla lafal cat li ci kanam rawal bët incha allah Doudou jërë ngeen jëf mbokk yi